yéen a ngi teewlu info 221. info 221. leen mbokk yi safoo di déglu info 221 xibaar yi ñu wéy ak leen rek kàddu yu jubee ci Guy Marius Sagna nee li responsabilité bi nga xamante ne rek moo jëm ci président loolee doy na waax ndax jamono ci dafay utilisé ay ambulance de police yoo xamante ne dañuy jege euh, kër Ousmane Sonko waaye nag lii di police nationale nag tey ji fas yéene ay policier daanaka di nekk si am ambulance fas yéene rek trompé vigilance résistant manifestant yooyu nga xamante ne jamono ji ña nga ca wetu kër Ousmane Sonko daal di ko sàmm aar ko ba kenn mënu faa dugg capturer opposition fas yéene nag capturer Ousmane Sonko rek lañ na ma def ginnaaw ba nga xam ne nag njiita réew mi ni la daal di euh, xalaatee boo moytuut nag chef de police yi dinañu mettre en danger askan wi rawatina nag ñu féete ci euh, askan rawatina ñu féete ci paj mi ndaxte ambulance yooyu nag dañ ci fas dañ ci doon nemmeeku ñu si amal ay malade fas yéene yóbbu leen ca yóbbu leen fa nga xamante ne rek euh, mooy euh, kër docteur yi waaye loolu nag dina gën a tax nag ñi nga xam ne ñooy faj rek euh, dañuy foog ne ñii di oto boobee dafa yëpp ak ñoo xamante ne dañoo daal di feebar loole nag war a mën a jural jafe ñii di takk der yi tax na rek li gën a fës wala li nga xamante ne moo gën a fexe fas yéene liquider njiital opposition de Ousmane Sonko waaye tamit dem rek ab fii ñetteelu mandat bi nga xamante ne nga jamono ji samp na ko askanu Sénégal te daanaka kenn daal dafa illégitime dafa illégal maanaam yoon mayu ko ko waaye nag askanu Sénégal tamit duñ ko daal di ko may Guy Marius Sagna daal di àddu rek di xam ne rek ni nañu daal di tàmbali waat lu jëm ci wàllum résistance constitutionnelle fépp fu ñu nekk fii ci réew mi daal di si xam ne rek njiita réew mi Macky Sall du bokk waaye Ousmane sonk nag dafay bokk